yàlla subhaanahu wa taala ñu koy sant mi ngi may kàttan ma si waat defataani fajar waaye di wa sallam ak waa këram ak saxaabaam ak képp ko yaa ngi topp sunnaam ba ilaa yawmil qiyaamati di jàmmat yàlla mi saafara si kaw suuf waaye julliti jiitu àllaxira yàlla yërëm leen yaatal seen baamel def seen baamel bu nekk rawat min riyaatil janna ndaw yàlla sàmmale aar leen laaxale fi تجلس سيال السرات مستقيم بدني على سامي آرلين على رفعني حوالي آدنا حوالي اللاهرة مجلني سفر آمين يا رب بكني يا وفي سداري محمد صلى الله عليه وسلم دي جانغ لي كرم مون نيو كلا نيب سي بس بما كبي دي اجوما بس بكين افورس بس يب نيا يعني يالا سبحانه وتعالى من جيكو فيك كو اجوما يو بري بري بري لب سي يا لي يالا نيو كو نقول إن ني سي يا لي نقول إن سي توبي وا يالا سبحانه وتعالى جيكال سي باكاري هم كي حمر دي ندوي ما كي فيك اك نبو الله سبحانه وتعالى دفعني حوالي أجنة حوالي الله إذا مشاهد سفر آمين يا رب العالمين مكجول نيو كنتيني سي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يا عليه الصلاة والسلام سي آية بي نغا حميني مو آية بي ونيني دومي آدم يالا متنون دين بي بياغا دين إسلام متنون لو حميني لنشاهد في بري بري بري بوكاتو سي أي يو يب صلى الله عليه وسلم won nañu ne waruñ ko see def ne man zaada fi amrina haada ma laysa minhu fa huwa raddun képp koo xam ne yokk nga suñ mbir bii loo xam ne bokku ci dañ la ko delloo waaw bokki jullit bon ëppale nit ki di jël waxtoom si loo xam ne amalu ko benn jëriñ waaye toog jàng alquran yéen salam mu ne laa aqul lakum alif laam xarf bal alif xarf laam xarf miim xarf wala kulli xarfin achara darajat nga gis ne benn alif laam miim rek waxuñ alif xaraf la laam xaraf la miim waaye bu nekk rek boo si jàng rek yàlla defal la si fukki tiyaabu bon balaa nit ki di war a wéy taymam di nekk si ay yoo xam ne foog ne mu ngi si diine fekk nekku si diine mbokku jullit yi wata sallallahu alayhi wa bi nga xam ne e, bi Abubakar waxee ne bi dafa mel ni yonent bi sallam mu ngi tàggee boppam e, yonent bi dal di wax saxaaba yi ne li Abubakar wax dëgg la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal si minbar bi nag pour eh, xutba eh, saxaaba yi waare leen si minbar fa xataba nabi sallam fa bakkat minha uyuuna wa jallat minha alquluuba mu ne ndeysaan xutbaam boobu xol yi tooy rong yi di rot yëpp mu ne xutba bu daw yaram ndeysaan saxaaba yi ku bugg yonent bi yi saxaaba yi ñooñu gën a bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam da nga gis ne ñun fii ñu oote ay soppa nabi ay soppa nabi waaye la ñoo def ak lo nabi soppa mel ni guddi ak bëccëg saxaaba yi melu doon noonu saxaaba yi dañ bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg boo xamee ne toppa si njàngaleem bi di ko roy jàngal lañ roy si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu jotali ñu ko saxaaba yi noonu lañ meloon waaw ak miin bi miinoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak oyof bi nga xam ne yonent salaatu salaam mu ngi ko oyofoon seen kanam waaye tey kuñ ne diw mooy diw rek dañ ko dañ ko ko toogu bu kawe kawe mu tiim ñëpp salaatu salaam musu def loolu saxaaba yi subhanallah im ak waaye mënoon na nekk koo xam ne su ko neexoon du ko jegeñ waaye déedéet raufur rahim borom yërmande ba moom sallallahu alayhi wa sallam mu dal di egg si ba ndeysaan commencé di waare saxaaba yi mu ne yaa ma'shar almuslimin ee yéen mbokki inni kuntu lakum nabiyan man de nekk naa nekkoon naa si yéen ab yonente waaw nekk yéen ab man la yàlla yónni si yéen waaw wa naasihan ak koo xam tamit ku leen ay yéeda waaw baax wa daa'iyan waaye ku leen oo سلين حمينة موي يوني سرات المستقيم كلنا أو سي جوب كلنا أو سي دين الإسلام دين بيغا حمينة مملايا لوانا إن دين عند الله إسلام دين بيانا نموسيك وصوف موي إسلام ومن يبتغي غير إسلام دينا فلن يقبل له وفي الآخرة من الخاسرين كيبكو حمينك نقول إسلام موسى دينة مدوين لكو نقول وعيكري يوم القيامة دنغي بوكا سيني برته ودهمونك داعيا إلى الله بإذنه waaw di oote jëmale si yàlla subhanahu taala mu ne waaye nag wa kuntu lakum ka axin musha mushafaq waaw tamit ma nekk sen biir nekk mbokka bu jegeñ mbokka bu leen bugga sallallahu alayhi wa sallam waaw nekk seen mbokka waaw ñëpp nekk ka jógee Habasha muy Bilal ka jógee Iran muy Salman Farisi ñëpp yéen bi sallam di wax ñom amun amul sen ak seen amul ne ki ku ñuul la amul ki arab la yonent sallam ne yéen suma mbokk ngeen sallallahu alaihi wasallam. mune abun rahimun way tamit ma nekk ab wajur wajur bu goor bu amir mari seen kaw moom sallallahu alaihi wasallam sallam len nak lan la mu wax ci fi lo xamne ñu ñepp war na sallallahu alaihi wasallam. ku mandu sallallahu alaihi wasallam. bu ko rajul akhi nit akhi ken mu dal dina ne man kaanat lahu indi mazlamatan falyaqum wal yaqtas minni waaw salaa salaam mu ne leen koo xamee ne mos naa koo tooñ si yéen koo xamee mos naa koo lor na jóg pour mu fayeeku waaw na jóg pour fayeeku te saxa te saxaaba yi ñëpp xam ne ne salaa salaam mosuda tooñ kenn waaw mosuda lor kenn salaa sallam mu ne leen nag parce que nit ki pour setal boppam bëgg na dem axi kenn mu ne leen koo xam ne mos naa koo lor na ñëw feyeku wala mos naa koo tooñ na ñëw mu ne bala yowmal qiyaama nga xam ne ni ne ah yonent bi kaay yow defoo nga diw lii defoo nga liw lii mu ne balaa boobu nag koo xam ne tooñ naa ko lor naa ko na ñëw feyeku balaa yowmal qiyaama mbokk julliti ñu seet suñ diggante tey tey ak jamono biñ nekk ni ñaata ay junne junne nit ñoy jël axi doomi jàmbur ñaata nit ñoy toroxal ay nit ñaata nit ñoy jaay nit ay dool jaay nit ay liggey lo nit ki nga ne do ko ah aha bo nga dem mom bari na waxtu bu yi dang koy dégg balaa nga wax sa mu ne ma oyal la police parce que lan amna na doole am na xaalis waaye nag doole boobu fii la am quwata lillahi jamia yàlla subhanahu wa taala nag dooleem pour ñëpp la waaw loo tax lu jëf lu di jëflante doomi aadama yi nay sóoraale àllaxira ndik fofu moom katan amatu fa dole amatu fa am am amatu fa fofu jëf la ñuy fay doomi aadama yi koo tooñ keroog yomal qiyaama ak xam ko fay ak ida dañoo jël sa yu di ko ko jox wala ñu jël sa moom yu borom mi jox la ko waaye moom foofu moom balaa nga tàggatoo by force li nga ameel doomi aadama si kaw suuf di ko fay bon loolu war nañ ko soraade bu baax a baax a baax yonent bi salaa sallam di wax ak saxaaba yi nga xam ne yërmande rek la amoon na ñoom waaye mu ne leen képp ko xam ne tooñ ñama wala lor naa ko na ñëw payeeku balaa yomal qiyaama bon moo ko jël qaalaha salaasa mu ko ñetti yoon waaw mu wax ko ñetti yoon te moom amewul kenn benn aaxa mais mosu la jotee kenn moom sallallahu alayhi wa sallam def leen uppoon def leen ñuy benn waaw bon salaa sallam mu ñoo jàngal mbokk jullit yi ku nekk si ñun war a bàyyi ñi ngay jëflanteel ndig aaxa dafay toppa bon yàlla ñu yàlla ci aaxa يلا يعني سبحانه وتعالى دفن نجامة سامي أرنيو أرن جابور بيت نسيا سيرة المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله بالعالمين آمين